إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam ci fas yéene jàng ab téeréem loole ngëneel yi ca nekk bari lool ngeen yàgg koo dégg allahuma suñu bisub tey bi lañ jàppoon ni moom la ñuy tëj ci tafsir bi ci wéeru koor comme niñ ko daan defee ci at mu nekk bisu ñaar fukkeel bi ak juróom ñeent lañ ko daan arrêté mi ngi noonu ndax bisu suba bi moom léeg-léeg bu nekkul bi sécurité it xëy ni nit ñi am nañ yeneen yu ñu bëgg di lijjanti kon fa lillahi alhamdu ñu ngi war a tëjee tafsir bi tey ci ubbi ko beneen saar gannaaw ba ñu yàlla wërsëgale ñu jeexal suuratu nuur ca it gaat nga gànca amoon suñu borom neenalu ko ndax wax naa leen ni bi ñuy mujj ci tafsir bi da nga jeexale woon suuratul mu'minuun muy saaru jullit ñi gëm jullit ñooñu yàlla waxoon ne leen dinaa leen nattu te bokk na bokk na ci nattu yi gën a rëy jullit yàlla teqale ko ak jàkka falilahi alhamdu ñu jàppoon ne comme suuratu nuur moo ci tege yàlla danañu mës a yóbbuwaat ca suñu jàkka ja ca ni ko Bilal Caam doon ñaane it bu ñuy dellu siwaat yàlla bu kenn manki ci sama yëg-yëg day yëguma kenn ko manki ci ñun yal na yàlla boole ca kon njëggalam ak yërmandeem incha allah kon ñu ngi war a jël suratul furqaan ci suñu aye bu jëkk su dee Cheikh Ousmane pare na بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم مني تبارك كوين جبركيل الذي نزل الفرقان على عبده كيغا خمني moo wàcce lii di téqalee diggante dëgg ak fen ci ab jaamam li yakuna lil aalamina nazira ngir mu nekk ñeel mbinda fan yooyu di nit ak jinni ku leen di xopp di leen waar allazi lahu mulku samawati wal ard ki kooku nga xam ni moo moom moomeelug asamaan yi ak suuf walam yattaxiz walada te jàppul kenn ci doom walam yakun lahu sharikun fil mulk te jëlul ñeel ko nekkul ñeel ko bokkaale ci nguur gi wa xalaqa kulla shay'in mooy ki bind lum mën a doon fa qaddarahu taqdira mu nattale ko ab nattale dogal ca moom ay dogalam wattaxazu min dunihi aliha yéeféer yi nag ñu ngay jël gannaaw yàlla yeneen i yàlla laa yaxluquuna shay'a ñoo xam ne bind ñu dara wa hum yuxlaquun te ñoom sax dañ leen bind wala yamlikuuna li anfusihim darran wala nafa moomu lu ñu seen bopp lii di lor ay dàq lor wala nafa wala ñu di njëriñ wala yamlikuuna mawta moomu lu ñu suñu seen bopp lii di ak dee wala xayaatan wala dund wala nushura wala dekkal ña nga xam ne nii dañoo dee woon mi ngi noonu mbokk lii mooy suratul furqaan mi ngi wàcc ci makka suñu boroom jalla waala ubbeeku ak bakku moom mi nga xam ne moom dong am droit bakku bokk na kim gën a bañ ci ay jaamam mooy jaam buy bakku looloo tax mboo li mu yonent dañu ko wonoon ak toroxlu guñ doon toroxlu ci kanamam kaanu lana xaashiin dañuy doon toroxlul dañuy wommatul yadduuna na rëxëban wa rëxëba di woo yàlla ànd ak tiit ànd ak xemmem amma bakku loolu mbokk amul benn jàmb yi bakku lu dul yàlla dana ko mas a toroxal ci àdduna wala alaxira moo am droit bakku mu ne moo kawe na am ca darajaam ya waaye moo barkeel bakku barkeelam ga doomu aadama mënu koo takk kenn munta xam suñu borom yàlla jalla wa ala nguuram ga fu mu toll mbindaa fanam yi fu mu toll ñaata tey kaw suuf ñi di dund yàlla gàddu seenub dund ñaata milliards de tonnes ci lu doomu aadama yi dund moo ko gàddu ñaata ñaata mooy ki barke koo xam ni noonu la turam wa barkeel lépp looy def boole ci turam yàlla barkeel ko loolu tax julit buy lekk bismillah buy solu bismillah buy génn bismillah lépp lu muy def bismillah buy rendi bismillah ndax tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram ñu borom daa barkeel loo ko booleel mu barkeel tabarak mooy barkeel moom mi nga xam ne moo wàcce furqaan furqaan mooy liy teqale diggante dëgg ak fen xamal ne yow doomu aadama suñu boroom bim ñu indi ci kaw suuf daf ne wa hadaynaahu najdayn ñaari yoon ñoo nekk ci kaw suuf yoonu ñay sant seen boroom ak ñoonu ñay weddi seen boroom imma shakiran wa imma kafura ñooñu nga xam ne ñooy shakir ba nga sant seen boroom la leen koy tegtal mooy alquran mooy wane ne fii mooy yoon bi yàlla gërëm mooy furqaan nga noonu wala mee ko mel ni ibnu taymiya rahimahullah bi ñu ne benn téere bind ko al furqaan bayna awliya illahi wa awliya shaytan lan mooy teqale ñi féeteeg yàlla ñi féeteeg shaytan loolu it mbokk nga xam loolu kaw suuf ñetti yoon néew fi ñaar rek fi nekk hizbullah hizbu shaytan parti yàlla parti shaytan ibaadu rahman ak ibaadu shaytaan ñooy jaamu rahman yàlla ak ñooy jaamu shaytaan ñooñu rek ñoo fi nekk looloo tax soo bëggee texe fexeel xam furqaan fexeel sa njaboot xam luy furqaan te mooy alquranul karim ak la koy leeral di sunna fan la wàcce alquran mi ngi ko wàcce ala abdihi cib jaamam mbokk yàlla yónni ne ay yonent ngir ñu jàngal nit ñi seen boroom wéetal ko seytaane profito ci cër ba ñu waroon a jox yonent yi am la mu bëggoon moo tax dem na ci yahudiya taaral leen ba ñu jël ne uzayru kat moom doomi yàlla la yàlla la yi sab na maryam naka noonu yëkkati seeni sëriñ cardinaux yeeg pape yaag yépp yëkkati leen ba suñu borom ni ittaxazu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min dunillah walmasiha bnu maryam wa ma umiru illa li yabudu ilahan wahida dem nañ ba yëkkati yonent yi ak borom xam-xam ya teg leen place yàlla te benn yàlla rek am moo tax yàlla téera leeral ne yonent yàlla la abd la léegi bi ngeen di taayee lu ngeen wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abd la jaam kese la kenn du ko yaakaar kenn du sukkandiku ci moom waaye nag mooy yonent bi ñu war a jëlee jaamug yàlla gi borom boobu subhanahu wa taala moo ko yónni ngiree mu war nit ñi ak jinne yi li ñu war ci diina ji moo ci war jinne yi xupp leen ngiree ñu moytu yoonu sawara wax naa la sànq furqaan ñaari yoon rek am yoon ba jëme aljanna ak yoon ba jëme sawara doon naa la ko waxit ci yow xalab jàngkat nga fexe boo mënoon a am téere boobu di al iqtidaau ala siraatil mustaqim bi muxaalafati ahlil jahim bu jege 500 page bu ibnu taymiya rahimahullah bind dala cay won soo bëggee tege ci yoonu njub mu boo bëggee mucc yoonu sawara yoonu njub bi fexeel ba xam ko rek tecc sa tànk jarul ngay xam yoonu réer yi ndax kenn mënu koo jeexal géej la gu dul jeex waaye yow daal fexeel ba xam lii la la yàlla sant akum yonentam nga tecc sa tànk rek direct ila aljanna nga jëm yàlla na yàlla teg ñu ca kon borom boobu mu ni ngi ñu xuppal alamin moom mii bokk ba tey mu ni moo moom moomee lu ko asamaan yeeg suuf mbokk yàlla moo moom nguur looloo tax mu ni qul illahuma malika almulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha yàlla moo moom nguur moo moom asamaan yi moo moom suuf li ko ci neex muy am les petit petit buur laa mu nattu moo koy jël jox kiy tuuti jox kiy tuuti jox kiy tuuti suñu réew mi rek da ngay gis ne buur bi fi nekk kam fi remplacé ba mu fi jóge doyulul ci nguur am déet waaye yàlla jël ko ci moom moom it kam fi remplacé doyulul woon yàlla jël ko ci moom ala kulli xaal yàlla moo yor nguur su ko defee ñu bàyyi xel loolu kaw suuf benn buur fi nekk mu ñu war a topp ay ndigalam am ñoo xam ne nee nañ d'accord nañ yàlla moo bind asamaan ak suuf yaa moom lépp waaye nag jël na ci ay jaamam ñu mu doomoo ñoo ñit dañoo leen war a yaakaar loolu yahud ya wax loolu nasaraan ya wax loolu la yéefiri arab ya wax ci malaaka yi suñu borom mu ñu déedéet jëlul kenn muy doomam gannaaw ba it nguur googu nga xam ne moo ko moom amul kenn koo xam ne bokk na ko moom di ci def lenn loo xam ne neexul yàlla amul sharik fil mulk borom boobu it wane ne moo bind lu mu mën a doon loo gis yàlla ko bind xaaliqu kulli shay'in ca moo ko nattalee dogal ci moom la ko neex commencé ci yow doomu aadama yàlla li bind moo la tànnal waajur yi ko neex ndax yaa tànnal sa bopp déedéet moo tànn def la ngay góor ndax yow yaa def effort pour nekk góor déedéet moo tànn def la nga njool yi gis ñaar ñu bokk ndey ak baay kii njool kii gàtt kii xees kii ñuul li ñu tudd des faux jumeaux sax ñoo xam ne ñoo bokk benn biir bu ñu leen ëmbee mais ñu mel ne penkook sow nuruwuñu dara te ñoo bokk benn benn ëmb yàlla moo dogal ci yow sa bët yi moo ko placé sa loxo yi defal la dogal li nga war a dund la nga xam ci biti la nekk ci biir ca cerveau ba nekk ca biir ba moo ëpp lépp suñu borom xaddarahu taqdira mbokk lii lépp yàlla ko def waaye téewul doomu aadama ci ak sàgganteem am na ñoo xam ne nee nañ fa ñukk yàlla moom i ut ñeneen ñoo xam ne ñoom la ñuy sukkandikoo ñoom la ñuy dimmidikoo waaye ñooñu mooy ñan borom bi nee na jël nañ ñoo xam ne benn ñoom binduñu dara binduñu dara ak neexoon tey ñu naan yàlla ak diw ñu jàppoon ne yàlla bi na asamaan yi diw moo bind suuf yàlla bind nit ñi diw moo bind bàyyuma yi yàlla bind géej gi diw moo bind gàncax gi waaye déedéet laa yaxluquuna shay'a bind ñu dara loolu rek doyoon na ci ñu bari ñu leen a jaamu borom bi ne bal wa hum yuxlaquun ñoom ci boppam dañ leen a bind ay mbindaafan lañu képp koo fi woo di ko màggal da ngaa delloowul temps bi rek dellool temps nga xool moom bis mos na ñëw mu nekkoon ab liir mi ngi noonu fa mu tëdd ku ko yëkkatul du fa jóg dellool mas na nekk ci biiru yaayam continuel mas na nekk toq ma niyu mi ngi noonu ak kum mën a doon nag mas na nekk toq ma niyu suñu borom yàlla di ko bind xalqan min baadi xalqin ba baa muy yëg si fa nga koy yaakaare boo ko boo amee xel nga xam ne kii du ku ñu war a jaamu wahum yuxlaquun borom bi teg ci it ni moomu lu ñu dàqal seen bopp lor amul benn jaamu yàlla lu dul lor day dal ci kawam hatta ki gënoon ki teg tànkam ci kaw suuf suñu yenent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne walaw kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani su su ma xamoon kumpa kay da ngay gis ne danaa dajale yiw yëpp ca lor du ma dal waaye dara daan ànd ak ay saxaabaam dem xeex ñu dàq leen damm nañ bañam tuur nañ deretam ay jafe-jafe yu dul jeex da ko daan dégg kon moomu lu ñu dàqal seen bopp lor moomu lu ñu ñoddi ñoddil seen bopp it njëriñ mbokk lor ak njëriñ ci loxo yàlla jàll wa ala dong la nekk borom bi it ne moomu lu ñu kenn ba mën koo muccal ci dee déedéet kenn ku ñu mën a muccal ci dee wala ñu ñu muccal ci seen bopp déedéet mënuñoo it dundal lenn loo xam ne nii dafa dee woon abadan mënuñoo créer lenn luy dund ca loolu lañu suñu borom jàll wax nee na ñi ngeen di wooce duñu yàlla lan yaxluqu zubaaba duñu mën a bind mukk benn weñ bi gën a néew ca loolu borom bi ne lan du am ba ilaa yawmiddin bokk dem nañ ba yàlla mujj may doomu aadama wallaay boo xooloon li ñuy tuddee ay porte avion ay bateau yoo xam ne nii dana dem lu jege cinq cent à six cent mètres yàpp naa bateau bi le plus long il fait six cent mètres nekk daanaka ab dëkk di jóge océan ba océan di naawal avion yoo xam ne nii dañuy yeb ay bulldozer lu ne doomu aadama nga koy def waaye ndax gars yi doomu aadama defagul na benn weñ benn yow luy dund déedéet laa yamlikuuna xayaa mënuñu fexe ba dundal dara li dee it mënuñu koo dundal mi ngi noonu dañuy wax ne am na benn ci savant russe yu jëkk yi seize ans lay def ci laboratoire seize ans di xool ndax li doon dund ba dee mënees na koo dundalaat après seize ans la génn ne c'est fini nañu xam ne li xis ba dee jeex na mi ngi noonu amma suñu borom nag moom moom moom bind gi moom moom dund moom moom dee moo tax yonent yi mu yónni woon dekkal na ci seen kanam gaa yi Ibrahima alayhi salaam yàlla wax na ko jëlal ay picc rendil tasaare yàpp bi mu rendi tasaare yàpp yépp woo leen picc yépp dekkiwaat ka nga xam ne marra ala qarya muy uzayru ci ñi yenn mufassiru yi wax ba mu rombee ci dëkk bi yax yi tasaaru mu naaw li yax yi moom lu ko yàlla dekkale yàlla nelawal ko téeméeri at gannaaw ba yàlla dekkal ko da ko yow ñaata nga fi nelaw mu ne ah yaakaar naa nelaw naa bëccëg wala gannaaw lu bëccëg ñu ne ko def nga fi téeméeri at sa biir nelaw yi xoolal sa mbaam mi nga waroon jëkkal xool sa ñam bi ñam bi moom dara dal dara yàquwu ci pendant téeméeri at ñam bi dara laalu ko nam meloon la mel waaye xoolal mbaam bi fekk mbaam bi def na suuf jalu suuf xoolal ni ko yàlla yëkkatee yàlla commencé jël jal jag jag jag jag jag mu doon ay yax yu taxaw gannaaw ba aw yàpp ñëw muur ko der ñëw muur ko mbaam bi ngaax mu war mbaamam dem ni bi am na ñu ne looloo tax ba mu demee yahudi ne yàlla la di ko jaamu yaa ngi dégg loolu mbokk yàlla def na ko yonent yàlla Muusa gaa yi ñëw nañu indil ko problème koo xam ne dañ ko rey xamuñu ko ko rey mun a rey leen rey leen aw nag gis ngeen looloo waral suratul baqara boo déggee suratul baqara loolu doo nga ko waraloon ñu tuddee ko ko rey leen aw nag histoire bu gudd na waaye ci gàttal ba ñu reyee nag ba mën a jël leen dara ci nag bi gaa yi dagg geen ba dóor ko góor gi góor gi dee woon jóg taxaw ne leen héey sama doomu mag ji moo ma rey ngir doon sama alal gis ngeen loolu am na amma isa ibnu maryam moom gis ngeen histoire am mi ngi noonu yuhyil mawta da doon dekkal ñi dee bi iznillah loolee mi ngi noonu su ko defee kon yàlla rek moom moom ak dekkal lii kon di mbir moo xam ne mbokk nañ ci bàyyi xel mi ngi noonu Cheikh Ousmane barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ni wa qaala allazina kafaru noon la waxee ña weddi in haza illa ifkun iftaraahu lii du dara lu dul aw fen woo xam ne moo ko dóoral wa aanuhu alayhi qawmun axarun da ko caa dimbali nag xeet beneen faqad jaa'u zulma ñoom di indi nañ ak tooñ wa zuura ak duural zuur mooy fen wu ñu taaral ba mel ni dëgg wa qaalu asaatiru al awwalin ñi ngi naan it lii du dara lu dul bindi maam yu jëkk yi rek yañ daan lépp iktatabaha dafa demoon recopier ko ñu bindal ko ko fa hiya tumla alayhi bukratan wasila ñi ngi ko koy dicté suba ak ca ngoon yee mi ngi noonu suba ngoon qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fi samawati wal ard neel déedéet alquran ji ki ko wàcce mooy ki xam secret yi nekk ci asamaan yi ak li nekk ci suuf innahu kaana ghafuran rahima doonte ne moom day ku jéggalaate la ku yërëmaate la wa qaalu ma li hadha ar-rasul ñu ngi naan waaw lu ñeel yonent bi ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq moom day lekk ñam di dox ci marché yi lawla unzila ilayhi malak lu tee woon ñu wàcc ci moom malaaka waay fa yakuna ma'ahu nazira mu ànd ak moom di ko xuppaale di di ko waaraateel ñu ànd di waaraate ñoom ñaar aw yulqa ilayhi kanz wala ñu sànni ci moom la nga xam ne mooy benn trésor aw takuna lahu janna wala mu ñel ko boog ab jardin sax yaakulu minha mu cay lekk wa qala az-zalimun noonu la waxe tooñkat ya in tattabi'una illa rajulan masura topp leen lu dul góor gu ñu njabar kese mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ni yéeféer yi day bi yàlla wàccee furqaan muy aayaam yu leer yi ñoom dañ ñi lii du dara lu dul duural ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duural boroomam am yeneen nit ñoo xam ne ñoo ko ci jàppale suñu borom nag ne day indi nañ aw tooñ tooñ nañu ca na am mi ngi noonu tooñ nañ seen boroom mi wàcc ay waxam ñu ne lii waxi nit la tooñ nañ ab yonentam mi nettali waxi boroomam ñu ne déedéet lii da koo duural indi na nit la nga xam ne moom mooy aw zuur mi ngi noonu ca may wax joo xam ne nii waxi fen la loolu la ñu yeneen ci bari sam doon moytuloo mas na toog ci benn mbooloo ba mujj mu ne waaw xanaa du ngeen kaay ma wax leen akbarul kabair li gën a màgg ci bàkkaar yi gën a màgg yépp ah xaka yum yàlla yónni mu ne mooy al ishrak billah nga bokkaale ak sa boroom ñaareel ba uququl walidayni jëf-jëf ju ñaaw jëmele ko ci say waajur ñetteel ba mu ne ala wa qawlu zuur wa shahadatu zuur ca mooy wax ay fen ak seede ay fen ba sahaaba bi ko doon nettali di abi bakrata ne dañ ne sax yaa laytaku yaa laytahu sakat e waaye ak neexoon mu nappi ndax li yonent bi doon insisté rek ci mbooloo mi ala xam leen bàkkaar yi gën a mag bokk na ca xawlu zuur wax ay fen ak seede ay fen loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala nag ni ñi ngi wax ba tey ni moom lii daa am ku ko koy dicté ca ñi ngi wax benn am benn waay boo xam ni dafa nekkoon makka bokkoon ci ahlul kitab teeloonu dugg ci l'islam ñu ne nguurus chrétien ji mooy dicté yonent bi alayhi salaam bu bu ko xëyee suba dicté bu ngoonee mu nettali ko bu ko waxee ngoon bu suba mu nettali ko loolu lañu wax borom bi nag subhanahu wa taala ne déedéet xam leen ne alxuraan ji ki ko wàcce mooy ki xam secret yi nekk ci biir asamaan yi ak ci nekk ci biir suuf te wallahi mbokk julita alxuraan ji li nga xam ne moo ci nekk ci ay preuve scientifique loolu da ngay gis ni kenn mënu koo takk walla waaye yéen ndaw ñi am na benn téere bu leen di wax fii soo duggee google rek mën nga ko tappee mooy gloire à Allah ou les mille vérités scientifiques du Coran benn livre la boo xam ni Arabie saoudite imprimé nañ ko fa joxe ci ndigal ñu koy tasaare dalay jàngal ci scientifiquement alquran mënul woon a jóge lu dul ci yàlla données yi nga xam ne moo ci nekk mu dëppoog science exacte bi am tey siècle bi yonent bi doon dund bal nii la après sax mënuñu ko woon xam am na yu ci bëri nit ñi ñoo ngi koy doog a xam à partir du dix-huit dix-neuvième siècle ak yu demee noonu loolu bu jox la ki benn benn misaal rek ki nga xam ne mooy Kis Moor dafa am prix Nobel ci embryologie c'est un allemand prix Nobel ci jigéen nu muy ëmbee ak nu muy wasine mu dajeeg benn julit kooku waar ko ci diine ne ko mais yow li ngay wax ci doomu aadama ni muy cosaanoo yépp alxuraan waxoon na ko yaa quatorze siècle mu ne ko non c'est pas possible loolu kenn mënu ko woon a xam sans les laboratoires mu ne ko pourtant alxuraan waxoon na ko de injil ko alxuraan fi yàlla di wax ci suratul hajj ni mu binde doomu aadama suratul mu'minin ni mu binde doomu aadama la alaq wax ko li yàlla binde xalqan min baadi xalq nutfa mudxa ila axiri loolu moo ko tuubal dugal ko ci l'islam ba deuxième édition bi mu génne livre am boobu ko joxoon prix Nobel fépp fu mu doon wax découverte da ca daan boole aaya ya nga xam ne moom méngi moom ci alxuraan loolu kaka ci jiite woon mooy Maurice Bucaille bi nga xam ne yàlla dogaloon na mu ñëw Dakar gi ci ay soixante-quinze su ma juumul moo bind le Coran la Bible et la science wane ne buñ jëlee Bible jël science jël alxuraan dañuy gis ne Bible bi chrétiens yu yor ay liib kese la kese la sax amul lenn lu ci nekk lu dëppook science alxuraan nag ba alxuraan jeex six mille quelques aaya amul benn aaya boo xam ne nekk ne contradiction avec la science moo ko kon loolu day wañu li yàlla wax anzalahu allazi ya'lamu sirra fi samawati wal ard kooku rek mu mën a wàcce alxuraan teewul nag borom bi ne innahu kaana ghafuran rahima te mooy yéefar yi bon yi li ngeen di bon bon bon li ngeen di diingat diingat diina ji bu ngeen tubee yàlla bal leen mi ngi noonu yow julit it xamal ne la ngay def ca kenn xamu ko sa digganteeg sa borom tuub ko waay gis boo tubee yàlla bal la borom bi nee na ñu ngi cay dolli ba tey naan waaw lan moo ñu ñeel kii nee na yonent bi yàlla la ba pare di lekk ñam comme ñun ni ñuy nekk ñam xanaa comme yonent la kay daa war a mel na malaaka warul lekk warut a naan gis ngeen loolee mbokk ñu dolli ci ni waxumaa dara nag moom dafay balaa dund fokk mu dem ci marché bi lijjanti lu mu dundee teewul woon yàlla wàccee ci moom malaaka mu ànd ak moom di di waar di waaraate wala boog yàlla indil ko benn trésor alal joo xam ne lu mu soxla am ko wala boog moo am jardin boo xam ne dara manqué wu ca mbokk yi ay lay la waaye nag ñàkk a xam sunna yàlla ci kaw suuf mbokk yàlla dafa yónni suñu yenent mu nekk royukaay mu ne ko wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin looloo tax mu def ko nit wàccee am amam ba ñépp mën koo roy bu nekkoon un milliardaire am lépp kon baadoolo yi duñ ko mën a roy waaye loo baadoola baadoola baadoola yonent bi alayhi salaam jaar na ci ay jafe-jafe yoo xam ne jaaroo fa am déet su nekk ab camion taxaw fii ci buntu jàkka ji bilaay walaay ñetti fan a ngi ci tàkkul sama kër suñu ko mënoon wax dañ naan ko yonent bi alayhi salaam ñetti weer ci ndawul tàkk këram mi nga noonu rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko def nu ni misaal borom bi jàll wa ala ne ko ñi ngi naan lii lii lii donte ne ñun julit lekk ñam googee ak jaamu yàlla la ci ñun yeneen tibaale sam ñu ne ki lekk ñamum yàlla sant yàlla dana am tuyaa ba ji tol ni ki wooroon ba ngoon muñ koor googee xadis boobu wér na yaakaar na suñ cam voilà mi ngi noonu yàlla may la lekk nga wax bismillah yéeg na ci yàlla la jóge lekk ba suur alhamdulillah sant yàlla tuyaa ba ji bëri la lay ñeel mi ngi noonu gannaaw ba marché ba dem ca marché ba yeneen ci bàyyi salaam mi ngi ñuy jàngal duwaawu suuq fekk na bilal cam fàttiwu ko ah mi ngi noonu mooy yeneen ci bàyyi salaam nee na amul kenn kuy dugg marché laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd yuhyi wa yumiitu wa huwa alhayyu allazi la yamut bi yadihi alxayr wa huwa ala kulli shay'in qadir lu dul daañ ko bindal alf alf xasanaat daañ ko bindal un million de xasanaat zikri boobu boo ko defee am nga sa compte un million ci ay tuyaaba kon dox ca marché ba ak jaamu yàlla la mi ngi noonu la ca des moo dina ne wàllu jardin yi ak wàllu la nga xam ne ni mooy tool yi mbokk loolu réeraloon ñu jëkk moo réeral nit yi tey nit yi tey jàpp nañ ñi ab sëriñ dëgg dëgg dëgg dëgg ab toolam kenn wuru koo mën a dab ci ab tool ñëwal Sénégal tool yi gën a réy ko ko moom mooy sëriñ si compte bancaire am la fa war a nekk kenn wuru koo mën a dab moo tax la ëpp ci ñoom ay milliardaire lañu tey jii oto ba ñuy war naka noonu kenn wurul dab seen oto taax yi ñuy dëkkee naka noonu lu tax mooy ci mentalité doomu aadama sëriñ dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne dafa war a jekku àdduna waaye ana sab sëriñ nga dem ñu fekk ko ci néegu barak wala fekk ko ci ab mu luyee wala nangam accam kii du dara mi ngi noonu fekk xamuñu ne yàlla subhanahu wa taala natt woon na ab yeneen tam sallallahu alayhi wa sallam mu daan toog këram du am lu ñu lekk ba muy jël xeer di takk ci biiram sallallahu alayhi wa sallam yaay Aïcha nee na guddi gi muy faatu fekkoon na yeneen bi alayhi salaam mi ngi leb cinquante lu ñu ko waxee mbuusu pepp ab yahuut la ko leb tay la ko la nga xam ne muy mbubb ko ngom muy mbubb bi ñu sol geer bi muy faatu mbubb bi ñu sol geer la yónnee benn yahuut mu lebal ko saaku pepp bu muy bu muy dundal njabootam ci koo xam ne yaa ngi jiite empire loolu lu taxoon yàlla moo ñu say doon jox misaal ñu xam ne adduna gi aw jaaruwaay la adduna bi ay tool la dañ fay war a sàkku ngërëmal yàlla waaye poñatu adduna waruñoo itteel te wér na ci hadis yàlla yónnee na ko yonent yàlla jibril da ko demal laaj muhammad bu bëggee ñu def ko malakan ki malikan rasula comme daawuda wala suleyman te loolu du ko yàqal dara sama digganteeg moom bi loolu amee mu ne déedéet nañ ko bàyyi mu nekk abdan rasula nekk ab jaam su amee sant bu amul muñ sallallahu alayhi wa sallam loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax nitug yàlla duñ ko xamee ci këram ci otoom ci toolam nitug yàlla ñoo ngi koy xamee ci comportement am même bu dee ne dafa luye même bu dee ne mi ngi ci néegi ñax loolu la ñu xamee nitug yàlla borom boobu nag subhanahu wa taala kon nee na lii mooy la nga xamee ni nii moom la ñu wax ñu dolli ca nag nee na topp leen lu dul nit koo xam ne ni masxuur ay jàngal nañ ko njabar ba mu man di njabaraate loolu rek ngeen topp mi ngi noonu Cheikh Ousmane barakallahu fikum suñu borom mu ni unzur kayfa darabu laka al-amsal eway xoolal rek niñ lay dóorale ay misaal fa dallu fala yastati'una sabila ñi de way réer nañu ci amuñu kattan di mën a dellu ci aw yoon tabaraka aka kawe ca barkeel allazi in sha'a ja'ala laka khayran min zalik ki nga xam ne bis bu ko neexee mu def ñella lu gën ci loolu ñuy wax lépp jannatin tajri min tahtiha al anhar ajjana yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex wa yaj'al laka qusura mu def ñella ay château bal kazzabu bis saa li waral wax ji yépp dañuy weddi bisu penc wa a'tadna liman kazzaba bis saa'ati sa'ira waaye ñoo ngi waajal ñu weddi bisu penc li nga xam ne mooy safara sa'ir mi ngi noonu mbokk borom bi mu ni xoolal misaal yi ñu lay dóoral ngir réeral nit ñi ci seenu yoon kii xam ngeen du yonent bu doon yonent du lekk ñam du yonent kon du dox ci marché yi du yonent na kon mu am alal ju dul jeex du yonent na kon malaaka ànd ak moom ila axiri borom bi mu ne xoolal misaal yi ñu lay dóoral ñii dawaay ñoo sanku ca amuñu beneen yoon bu ñu mën a jaar ba jub borom bi bakkaat boppam te dana ko bakk ci ñetti yoon ci biir saar bi tabaraka allazi nazzala alfurqan tabaraka allazi in shaa ja'ala tabaraka allazi ja'ala fi samaa'i buruja ca fin saar ba aka kawe ca barkeel ki nga xam ne heure bu ko neexee mu jagleel la ajjana ya nga xam ni ma ngay daw ca suufam ay dex jagleel la fa la nga xam ne mooy ay château ca mbokk ajjana ngi noonu moom la yàlla waajal ay yonentam moom la yàlla diggoon nit ñu baax ña keroog ba waa ansaar ñëwee di jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca madina ca bayatul aqaba ci ni yonent bi ne leen damay ñëw ci yéen ngeen fatma aar ma ni ngeen di aar seen njaboot dañ ko laaj ñu ko waaw bu dee def nañ loolu te mooy risque suñuy bakkan ànd ak yow léegi lan mun ci ñeel yonent bi kàddu ga gàtt la leen wax muy aljanna jeex na janna mbokk julit aljanna lay sàkku ci kaw suuf aljanna joojee nag mën na am yàlla nattoo la nga gaana ba baa ngay dee prison ba baa ngay dee ñàkk ba baa ngay dee waaye mbir mi du loolu mbir mi mooy ndax yaa ngi ci yoonu yàlla bi la jëme aljanaam déet jeex na ñi ngi lay waajal ajjana joo xam ne château yaa nga fa ghurafan min fawqiha ghurafun mabniya château yi ajjana bokkul ak yu àdduna château la yoo xam ne dañuy gis ay château ay château nekk ci kawam yoo xam ne nii kenn mënu ko imaginer ci kaw suuf château bi flotté ci kaw yeneen château di château ila axiri yonente bi alayhi salaam nee na nit ki nekk ci àjjanaam am na ci rek pavillon yi muy féexloo yoo xam ni guddaay ba dana mat quatre vingt dix kilomètres ci kaw mi nga noonu quatre vingt dix kilomètres ci kaw am na benn waay bu bew boo xam ne nii ne woon na dafay def un maille benn immeuble bu muy def boo xam ne un kilomètre six cent la ba mu demee ba gaa yi seet seet ne loolu munta nekk ca la wax ne kon il faut na def rek lépp un kilomètre léegi ñu ngi tabax immeuble ba ña ngi koy def mooy gratte-ciel boo xam ne un kilomètre lay lay lay doon un kilomètre bu teg un mètre au moins mu ne dépassé na un kilomètre ci beewam xam ngeen boo demee Dubaï am na fu boo xam ne huit cent mètres la moom mu ne day def un kilomètre et quelque am maa yonente bi sax loolu la ñu wax da ngay gis koo xam ne nii day toog ci benn château boo xam ne dana def en lii lii di quatre-vingt-dix kilomètres ci kaw xusuura waaye borom bi nee na naka ñuy def ba duñu wax nit ñi def ndax dañoo weddi bis penc te mbokk lii différence entre jaami yàlla yi mooy ki gëm àllaaxira ak ki weddi àllaaxira ki gëm àllaaxira ni muy gise àdduna ak ki ko weddi mënuñoo bokk ki weddi àllaaxira day jàpp lépp fii la kon ki yàlla teral mooy ki teddi fii ki yàlla toroxal yaay ko toroxal fii loo mën a fexe ba fii baax def ko booy sàcc booy njumlang booy ren loolu lay defal ndax fii rek la yem amma ki gëm àllaaxira moom day jàpp ne fii ay tool la dama fee jaar yàlla di ma nattu waaye sama añ maa ngi ko yaakaar ëllëg ci àllaaxira moo tax borom bi nag ni ñu weddi bi si penc day maa ngi leen di waajal lii di sair Cheikh Ousmane dañuy mottalil tuuti rek ngir ñu mujje xéewal ak yàlla ba ñu mujje sair jazakallahu xayra suñu borom mu ni sawara sair ida raatuhum min makanin baid su seene yéefiir yi ca place bu sori sami'u laha taxayuzan wa zafira dañu koy dégg ma ngay nekk di am am riir ak la nga xam ne mooy sifle yi muy sifle di bëmb mi ngi noonu wa ida ulqu minha makanan dayiqa buñ leen fa dugalee ci place bu xat muqarraniina ñu doon ñu ñu njoñ seen loxo yi ñu chaîné ko ca kaw loos ya da'u hunalika subura bu ko defee ñu ngi nekk di woo foofee la nga xamee ne mooy alkaange laa tad'u lyawma suburan wahida bu leen wootee benn alkaange wad'u suburan kathira woo leen kay alkaange yu bare bari qul azalika xayrun nee leen madax fii ngeen nekk moo gën am jannatul xuld wala àjjanay sax ba faw allati waida almuttaquun bi nga xam ne dañ koo dig ña nga xam ne dañoo ragal yàlla kaanat lahum jazaan wa masira dana nekk ñeel leen pay dana nekk ñeel leen ak mujj lahum fiha ma yashaaun dana leen fa ñeel lu leen ne xaalidin ñu sax fa ba faw kaana ala rabbika waadan mas'ula loolu day nekk na ci sa boroom dig boo xam ni dig bu ñuy laaj la mi ngi noonu mbokku sawara yal na yàlla musal ñu ci suñu boroom yàlla bind na ko mi ngi ci kaw asamaanam yi mu denc sawara soosi yowmal qiyaama dana ko indi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla wutal na ko juróom ñaar fukki junni ci ay jàppukaay jàppukaay bu nekk juróom ñaar fukki junni malaaka ñoo koy diri mu nekk 4 milliards 900 millions ci malaaka ñooy indi sawara yawmal qiyaama wa ji a yawma izin bi jahannam su ñëwee mbindaa fan la buy dund comme yow doomu aadama comme fas comme lu mu mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dana am benn baat bu ci génne am ay bët daa di bu dee ne bëmb na nee na yonente ku dul yonent ñépp ay ànd boof ñépp ay ànd boof tiit naan yàlla nafsi nafsi su ko defee mu yor ak bëtam yooyu ne yàlla mi ngi koy yebal ci ñi nga xam ne dañoo réy réylu woon gëmuñu yowmul xisaab ànd ak mer moo xam ne nii un ferñeent ya fay génn suñu borom mu ne kal qasr ferñeent yi tol na ay taax muy bëmb sami'u laha shahiqan mi ngi noonu ci yeneen aay nam koy waxee borom bi nag nee na bu malaaka yi jëlee say say si sànni leen ci ay place yu xat ñu doon ñoo xam ne dañ leen a lënkale njoñ nañ leen boole buur ya lekk ko riba ya caga ja ku nekk ka nga ka nga meloon ñu boole la ak moom nee na buñ demee dañ fay woo ak alkaange ca mbokk sawara xoolal yaatuwaayam nan la war a toll rasul sallallahu alayhi wasallam nee na bu ñu jëloon xeer bi gën a rëy ci àdduna ba mëx ko ci sawara dana def soixante-dix ans avant mu yegg ca ca ca fa mu war a yegg tey sunu borom mu ne dana ko feesal waaye lan moo waral loolu mbokk ngir yéeféer gën a mën a mos mbugalum yàlla yeneen ci bi alayhi salaam nee na yàlla dana pompe yéeféer yawmal qiyaama ba bëñam rek day toll ni jabalu Uhud benn bëñam day toll ni jabalu Uhud imagine leen nag koo xam ne war na am 32 ans ca bëñ bu ne toll ne jabalu Uhud nan la bopp ba war a toll nan la jëm ja war a toll looloo tax yonent bi alayhi salaam di wax naan yéeféer da ngay gis ne yaatuwaayu dënnam rek dana toll ne Madina ba fu ñu wax xaba benn place boo xam ne nekkoon na à 170 kilomètres kon noonu la leen yàlla di def ko defee nag seen der ba ëmb yépp mbugal ma nag di leen jóge fu nekk di leen jóge fu nekk donte ne yow jullit it xamal ni suñu borom yàlla kuy dugg aljanna da lay defaraat nga mel ne maam aadama alayhi salaam mi nekkoon si tuuna zéro bi ko yàllay bind au minimum doomu aadama yi nit góor ak jigéen kuy dugg àjjana yàlla da lay def da ngay yegg trente mètres ci kaw plus de trente mètres ci kaw noonu la waa àjjana di toll ndax noonu la maam aadama tolloon gannaaw ba yàlla di wàññi nit ñi di wàññi nit ñi ba ñu yegg si suñu génération trente mètres ci kaw yàlla bindaat ñu beneen façon bindiin nga noonu ci taar boo xam ne yàlla moo ko xam ala kulli xaal moo tax mu ne daañ fa xat di woo alkaange borom mu ne bu leen woo alkaange ndax mbokku sawara bu doon dafa doon rek ak lakkaate kese loolu doyoon na mbugal waaye déedéet borom bi tudd na fa la ñuy tudde yaxmuum muy ammoniac genre ammoniac bu ñuy noyyi muy xotti poumon ya alxasaaq di dëtt dañuy naan la nga xam ne moo fa nekk ci ay bolde yu malaaka yi di dóor seen bopp yi di xor di di xar la fa nekk ci xamim la fa nekk ci jahim ila axiri moo tax borom bi ne wa yatihi lmawt min kulli makan ma huwa bi mayit fu ne la ko dee di jógee kon préparé leen woo alkaangu gu bëri borom bi nag daa dina waaw léegi nag ndax ki mujje fii sawara si ndax dana yem ak ka nga xam ne mujjam mooy ajjana joo xam ne ku fa dugg doo génn ba faw jannatul xuld nga xam ne yàlla nga ko dig ñan la ko yàlla dig ndax waa makka ndax ñu sant njaay ak jóob wala leneen yàlla nga ko dig al muttaquun ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ak fu ñu mën a nekk ñu ragal yàlla borom bi mu ne dana leen ñeel pay ak mujj payuk teraanga la waaye àjjana kenn liggéeyu ko waaye nag effort la booy def boo xam ne nii da nga koy def yàlla dolli ci ngëneelam ak yërmandeem borom bi nee na foofu la ñuy mujj àjjana kenn du fa dugg di génn abadan xaalidina fiha abada borom bi nee na buñ duggee àjjana lu leen neex daañ ko fa am te waaye gars yi lii Bill Gates amu ko de lu ko neex am ci kaw suuf wallahi amu ko mili artistes yi gën a siiw ci kaw suuf amuñu ko Trump ak li muy yor yor nguur amu ko kaw suuf kenn amu fi lu la neex am amma aljana nag lu la neex nga am yonent bi sallallahu alayhi wasallam dig nañu sax ki nga xam ni bi muy jóge ci kaw suuf amul njaboot ci ajjana la ko yàlla yi may ak njaboot mi nga noonu soxnaam yem jagleel ëmb wasin jigéen ñi amul woon njaboot it am njaboot lu leen neex ngeen am foofu da'wahum fiha subhanaka allah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin amul lu sa xel di dem nga ne subhanaka allahumma lu dul teew na sa kanam lu sa xel di dem rek subhanaka allahumma teel na sa kanam ci nguur goo xam ne ka fa gën a néewle dana am suñu planète terre bi plus de dix formes moo fa gën a néewle bu ko defee yatabawwa'u minha haythu yasha la neexee ne cëpp dem planète mars planète nangam ci misaal mi ngi noonu ma yasha'un borom boobu nag subhanahu wa taala ni lii day dañ fay sax ba faw nekk ni dig boo xam ne dig bu ñuy laaj la ca dafa am ñaari dig su ma ne la woon danaa la may portable loolee danaa la may portable dig naa la ko waaye waxuma la tey wala suba waaye su ma ne loon ah yow day waay may naa la portable waay ñëwal jël si ko maa la ko dig danaa la ko may maa la jox ndigal nga jël si ko ngaa yi looloo gën a dëgër moo tax ngir ajjana ñu xam ne képp ku ragal yàlla àjjana mi ngi lay xaar ndax kat yàlla waajal na ko ba pare amul benn jaamu yàlla lu dul yàlla wutal na ko payam ca aljanna su jaaree fi neex yàlla wutal na ko place ca sawara bu jaarul fi neex yàlla loolu kon yomb na yàlla ndax am na ko ba pare kaana ala rabbika wa'dan mas'ula lii nag mbokk yàlla nga ko dig ñi nga xam ne nii dañoo ragal yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla boole ci jaamam yi ko ragal yal nañu yàlla may aljanna ak lu ñuy tax a jege aljanna yal nañu yàlla musal ci sawara ak lu ñuy tax a yóbbu sawara yal nañu yàlla wërsëgal lam lam ko doon ñaan yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla musal ci lépp loo xam ne doon na ko te muslu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla boole ñu ci ñoñi alquran yal na ci yàlla leeral suñuy dënn naatal ci suñuy xol boole ñu ci ñu koy jàng guddi di ko jàng bëccëg yal na nekk imam bu ñuy jiite ba tabbal ñu firdawsil aala yal nañu yàlla musal ci lépp luy tiise àdduna ak tiise àllaaxira yal nañu yàlla jéggal jéggal suñuy waajur jéggal suñu njaboot jéggal bépp julit feebar bii nekk ci kaw suuf yal na yàlla teggi ko ci jàmm yal na yàlla féewéelu ko ak ñun sàmm ñu sàmmal ñu suñuy jàkka ña ca faatu yépp yal na yàlla dafa leen àjjana seen wàccuwaay ña ca feebar yàlla yëkkati leen ci jàmm yal na yàlla rafetal ci suñ mucc weeru koor gi ñuy dund lépp luñ ci jàmm yal na yàlla nangul ñu ko nii ñu jeexale tafsiru tey bi yal nañu fekk tafsiru weeru kooru déwén fekk ci ak yokkute ak jàmm ak aafiya yal na yàlla boole ñu ci jàkk nim ñu boole ci jàkkaam ji yal nañu yàlla boole ci firdawsil aala ñu ànd fa ak nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين